m'appelle Mohamedan Fall alias Demi Problème ambassadeur de des détenus représenter tous les détenus ak ñu nekk kaso bi xam moi c'est Habibou Ndiaye né à la Médina à la rue 27 angle 6. waaw kaso c'est la drogue. Ah, parce que moi je suis sorti à l'âge de ans au Sénégal dem en Europe par la suite Abdou Diouf nous avait coincé. Alors on était en galère, on est rentré dans la drogue. Alors, mais quand même, je me forcé def école de métier nafa di tonneau Paris génn naa samay diplôme ñëw Sénégal bon comme man affaire complet laa jàng ay blouson ay veste costume chemise pantalon ma ñëw indi sama matériel ñëw gis ne ñun amatuñu sax client yu ñu ñawal parce que boo naree ñaw benn chemise 2000 francs wala 2500 nit ki dem fëgg jaay am ci 5 chemises yu dàq yow li ngay ñaw nga xamuñu ndox fëgg a jaay bi yëre kan la ma obligé dugg ci leneen dugg ci affaire drogue bi gauche droite comme j'étais consommateur ma am suma ay boy yu may jàppale di ma jox léeg-léeg ma am lu ma jaayee pour ma am lu ma fajoo. par la suite suma benn waay ma fekk ko à la rue 39 benn kër mu ñëw na ma dimbali ma jàppale ma benn ma ne ko non suma consulte suba laa yor mënu ma ko joxe man ma grand fa nga jàppale ma sinon mu metti sa boy ma génne benn jox ko bi alkaat yi di dugg ci foofu man j'avais presque neuf parts ci man dixième bi laa ko jox moom mu def ko ci poosam bi ma gisee alkaati yi si biti di wax rek ma xam ne lii ay alkaati la ma lekk neuf parts booba temps ñu ngi def part réunion yi ci ay enveloppe bi ma ko lekkee moom mu def affaire am si poosam parce que dafa sigoon mënul woon pour moom alkaati yi duñ ko palpe bi mu ñëwee ñu palpe ko laaj ko sa poos bu génnee alkaati yi xam nga ñoom dañu sopp dugal loxoom gis keppa bi ne ko kii nag génn na moom si biti mu ne ko waa ji sol costume bi toog ne la moom ko jaay. damaa ñu euh, nuyu euh, avant tout waa 100 mètres di nuyu ci 37 xool prison yi xam ne moo am si Sénégal parce que y' a 37 kaso yu fa am am Sénégal xëy na fii nag euh, ñoom ñu gën a miin mooy ay dixième bi nekk kees te boo demee ba dixième am na benn chambre boo xam ne ñu ko tuddee Iran Ndao maa ngi nuyu quoi moom sax xam na si foofu dara quoi xëy na gars yi mosuñu dégg loolu mais am na chambre boo xam ne mi nekk dixième si nekk kees boobu Iran moo ko moo na ko tuddee parce que moom jaar na fa ndax xam na te moom li mu def foofu noonu ba am fa néeg voilà loo tax mu tudd bu ko ñeneen defoon 100 mètres dina gën a yaatoo a métti nag sama première question bu en tant que Rebeuss quoi première question maanaam maanaam li ñu woowee rentrant première jéemaan bi parce que bu ñu la jàppee du ñu la ñëw rek déféré la mën nga nekk defkat police ni la taral jàpp xam nga mën na la jàppee ak saafir indien mën na la jàpp ak sàcc mën na la jàppee ak loo xam te ni da nga xiif mën na la jàppee loo xam te yow taaree compris sans départ mën na nga nekk mën na la jàppee lu nekk mais li ma gën a metti mooy buñ la jàppee biir chambre li ñuy wooyee un rentrant avant rentrant da ngay jàll fu ñuy wax cours de roqa foofu na lay sëmmi maanaam taasu neen yaramu neen ñu xool ndax dugaloo dal si biir chambre bi bi ma dugg see prison 100 mètres c'est dégueulasse. bi ñu njëkkee dugg si déjà rek entrée bi rek bon man comme dama amoon ay bijaaw ils avaient un peu de respect si man mais waa jooju mu fa dugal man dama joxoon ko benn part bi moom xam nga lu mu am ak ñoom mais dañ ko def taatu neen si tàng-tàng bi dëpp bopp wi suuf yëkkati tànk yi jël ndox bu sedd toll si kaw miir bi di ko sotti si taat yi avant rek ñuy dugg sax fii chambre yi nekk. sàmm mooy xool première chambre bi nga njëkk a dugg bi nga njëkk a nga romb ay giri ay kànnaar ay nit ñu langal seen loxo ay nit ñu xoosu yaram yu xooleeku loolee nga dugg si première chambre sa tànk bu duggee nii beneen tànk bu taxawee nii dootoo bouger chambre chambre yi day liggéey ay cinq personnes parfois six parfois sept ñoom dañ lay bàyyi nga xoolee pendant deux heures temps xool nii néeg bi nii tellement c'est tellement populaire parce que mënoo jël benn néeg boo xam ne nii mu war a jël cinquante personnes nga dugal fa cent soixante quinze personnes man maa ngi woon fu ñuy wax chambre dix maa ngi moo nekkoon chef de chambre bi tax ak ma tax ak chambre neuf euh, maa demba mi nekk fii tey Grand moom moo nekk foofu. bon bi ñu dugg see moom ñu yóbbu ko chambre dix man ñu yóbbu ma chambre trois heureusement xam nga rek ku am ay nit waaw ah, booba xamoon naa sama ay booy yoo xam ne ñu amoon ay longue peine booy boo xam ne sax daanaka deful dara. moom ay copain am ñoo defoon mu leen di indil sandis booy yu tudd turam rek ndekete avocat bi yoroon dossier bi juge bi déggoon na boobu quoi rek mu wax gendarme bi kiyal ma booy bale di indi sandis bi moom noonu lañ ko duggee en prison mais moom bokkul woon sax ci délit yooyu copain yi defoon yaa fee la baax xaw ma bi ma fay ñëw fekk foofu def na fa huit ans déjà kenn waxul ak ñoom alors moo ma ne grand yow moom xajoo si ay kii yii si ay kaw bangaloo yii su ma grand sama mat la dañ ko bokk ñu ñaar quoi voilà ma ne ko man daal booy amul problème man fajar man ma yeewu quoi taxaw naa quoi chambre bi déjà moo ëpp fii mais nit ñi bu bu guddi jotee bu ñuy tëdd kii boppam day féete nii kële beneen bopp bi féete nële donc comme ça le gars qui était chef de yi il s'appelait Habib comme moi si un homonyme nii lay def nit ñi dugal yow donc nii ngay tëddee côté boo tëddee côté ba bër set doo mën a sax tourner heureusement une semaine laa def chambre 3 alors euh, bi sama sœur ñëwee ñu lijjanti avec l'avocat la Ali Sarr ñu yóbbu ma à plat au 45. tu vois appala nekk suñu gannaaw foofu nag mais pour ba pour borom alal bu ma demee banaa neen leen la loi c'est pour les pauvres dañuy wax dëgg te yàlla moo tax kaso bi pour baadoole yi la quoi ñu doonoo soxla ay solution si biir kaso bi xam nga. mais euh, da ngay jàpp benn jelmaan nga dugal si néeg boo xam ne benn bi ngay dugal si benn prisonnier foo mu dagg parce que dañuy wax pour ay solution dañuy wax problème pour trouver la solution il faut poser le problème sinon y a rien tu vois kon donc bu demee ba jël combat bi tànn ko ñu daw ñëpp daw affaire u kaso mais am na ñu tëdd fii ay kaso ñu ñu tëj ay dix ans douze ans mënuñu si ŋaan bu ñu génnee parce que xëy na maîtrise wuñu kaso bi parce que kaso moo noonu dafa am foo xam ne waa pour baadoor yi la am foo xam ne waa pour borom alal la yow mi sàcc ganaar yow mi toxal yow mi benn juin yow mi jàppe benn coton yow mi jàppe benn leneen leen lu gën a yomb yaa ngi rey nit yéene bokk même chambre la Latif Gueye benn dem si yàlla si di créer la loi xaw ma lan laram laa nekkoon kurusam laa woon wérdee parce que daf ko fa fàtte bi mu génnee foofu ay lalu hôpital la boobu def naa une semaine sans mètres jour boobu jour bi ma ñëwee à plat laa soog parce que lalu hôpital laa tudd te on a deux chiottes da ngay sangu da ngay lekk y avait des banquiers y avait des bon voilà ku nekk lalam quoi foofu daal def naa fa quatre mois mais à l'aise bi ma garde pénitencier yi boo nekkee bandit dañ koy xam boo nekkee un homme correct dañ koy xam ñoom toujours il t'attaque mais yow yaay xam sa bopp bu ñu xamee ne tu es un gars respecté dañ lay respecté. boo xam ne bés bi garde yi ak Germain ñooy parce que ay garde la man papa ma takkas ko garde mais xam naa ne garde yi duñ si lenn ko parce que ñoom dañ leen dénkaane ñoom ak prisonniers ñoo yam parce que ñoom garde yi sax ñoo na gën a sonn moo tax ñoom la plupart si alalu Germain la ñuy jël di ko dundee. jàpp nga doomu jam tëkkat maam si kaso yi pendant sept ans huit ans neuf ans dix ans jëm douze ans muy dund li ñuy wax jagaan ñam boo xam ne boo ko jëlee boo ko dankee boo ko sànni si miir mu collé nga koy jox nit mu koy lekk. waaw mais parce que ñoom dañuy dañuy manigancé booy yi puusal doxal avancer rangal nga yëndu ñu ne dugal tak dóor yooyu moo fi war a jóg. la méthadone c' est fait à Paris pour les jënki sénégalais mais les assistants sociaux dañu dem ba si yàgg ñu xool ne kii day tax nit du am doom day yomloo nit ñu ne bu buñ ko joxati seen seen doom en France léegi ils l'ont amené au méthadone boo ko doon naan en France c'est un couleur comme du lait actuellement c'est bleu euh, à ñu ngi koy jox nit ñi au sépia ñu ngi jop 100 mètres 1827 jamonoy colonialisme da nga fa dugal ay fas ak ay armes la ñu fa dugal ay nit boo dayul nag boo dundul sa adduna boo laajful doo xam ne nekk si kaso bi ñëpp ñoom kaso benn hôtel wala benn appartement wala benn genre buy jaay shawarma wala hamburger la kaso mooy jeel kaso xam nga la mooy kaso mooy fi nga xam ne xool la doon la ngay def loo booy tëdd da booy lekk da ngay rang boo dem douche ba da ngay rang booy génn appel da ngay rang. prison c'est pour tout le monde c'est comme les hôpitaux mais man bu ma amoon lu may wax sax Macky Sall laa koy waxal direct pour ñu changer un peu quoi parce que nos peuples laa actuellement c'est la mondialisation ngay nekk fii am sa copain bu nekk États-Unis ngeen di wax di gisante si WhatsApp tout. donc nit ñi affaire mondialisation la mën nga nekk fii Sénégal di liggéey États-Unis sa salaire di jógee États-Unis à cause di net donc affaire noor sa peuple moo fi war a jóg. bu ngeen bëggee xam li am biir 100 mètres loolu moo am biir kaso yi te kaso yëpp xam ñu naa 100 mètres mais dixième moo gën a bon si kaso yi nekk Sénégal fu te moo nekk kees 100 mètres bi ay quelques chambres dafa gën ñàng ay chambre 4 ay chambre xam nga ay chambre. ay chambre neuf ay chambre dix mënuma gëm nga jàpp benn doomu jàmm tëkke mandaam sept ans nga xëy si waxoon ni ko génn nga ñibbi boo xoolee jamaan dañuy ngan nga néew yi jagan bi moo leen def loolu jagan bi benn ceeb la boo xam ne ni moom la ñuy toggal xoola jelmaan yi ay temps dañ doon ay temps xam ne doon jeqee ay temps peel lañ doon jeqee cin li war ne la jàppee nu doom jelmaan yi nit kaso jombul kenn ku nekk mën na fu dugg am nañu fa dugg en vie duñu génn am ñu fa dugg ñu ñu graissé parce que la loi pour les pauvres ñu def pays injustice fii boo yoree sa dara du cóol du metti mais boo ñàkkee nag nga war a xam sa bopp te kaso bi dafa am ay màcc fa am foo xam ne ni waa pour baadoole yi la am foo xam ne waa pour borom alal yi la ay appala pour bos yi la espace jardin ñi am moyen mais ay chambre neuf chambre dix chambre trois chambre quatre liggéey boo fa duggee da nga xam ni fii beneen adduna la man je préfère 100 mètres tey man bu waroon président tey xam nga lu may def 100 mètres chambre de métier pour les détenus yaatu na ay hangar la en Europe tu es en prison dans une maison d'arrêt comme la santé on est quatre dans une chambre lui faire forger kenn ci suuf kenn ci kaw beneen côté bi kenn ci suuf kenn si kaw ngeen am seen toilette ne le seen chiotte am taabal ci digg bi ngeen am seen télé am seen rajo ku nekk di suivre penam di contacter avocat am avocat bi sax da lay mën seet si parce que dafay am hygiène fi nga nekk mais tey man du ma nekk avocat man nga nekk chambre 3 am problème du ma fa duggoo parce que je sors en tant que avocat passe à au principal hôpital lay jubal ndax ay microbe pour lan prison kan la jomb doomu président dugul prison man bi ma nekkee foofu Idrissa Seck mu nga foofu bi ma nekkee cent mètres Idrissa Seck benn miir suñ moo dox suñu diggante te pourtant il s'apprête à être président kon dañu war a defal prison yi cent mètres tubaab bee ko defaroon nañ ko dindi yooyu jël cent mètres def ko chambre de métier pour les détenus détenu buy doon sàcc ay ganaaraat ay sandagaax tubaab yeex affaire yooyu ñu ne la yow ban métier nga bëgg jàng menuisier mi ngi fii électricien mi ngi fii tailleur mi ngi fii internet baa ngi fii bu fekkee ne am nga niveau d'étude xam nga nga def formation yëpp ñu def ko dans les prisons ñu jël cent mètres ba ban fa tëjil sax nit def ko des trucs de métier créer yeneen prison par quatre personnes par chambre gisuñu bu amul métier ñu bu la cent nga am penu longue peine bu un an deux ans ñu def wala formation boo génnee nga nekk tailleur wala nga génn am métier da nga am fooy liggéeyee di nga bàyyi sàcca beneen détenu nga tëj ko muy lekk ay kopp nga tëj ko mu def pen deux ans trois ans génn amul dara ci bopp bi mais day sàccewaat gars yi. ñee nañu job nañu benn benn benn kaso bu nekk euh, jam ñaajoo boobu noonu même plan ak Guantanamo moo tax ñu tëj ko yow Europe boo demee si kaso Germanie européen mais Germanie am nañu yëri am nañu ay bëgg suñu sol ñëpp a euro assemble mais Germanie fii amul yëri yu ñu sol ma ñàkk suma ndey benn yére bi ngay fóot nii boo tegee benn siwa ndox nii nii siwa ndox nii pour fóot sa yére nga dugal ko nii si biir di fóot nii fóot nii weñ ndox mi nii y'a vingt personnes yuy xaar ndox mi pour mën a fóot seen yére mënuma gëm en tant que sàngar ndox mi ndox mi ndox mi chaque instant di ñëw di ñëw di ñëw di ñëw ndox mi xool day ñëw minuit lay ñëw une heure du matin six heures ñu tëj robinet yi bu ñu demee ba jël jel bi jël lu mel ne que xoolal fi nit ñi di demee duus boog di jonkon toilette bi dafa benn barrière benn morceau ki jonkon day jonkon nii di dem douche ki sangu day sangu nii benn rideau moo ñu nii benn rideau te ki saw bu ñëwee day taxaw si yow jonkon di dem douche moom foofu lay taxaw di saw sawam ki sangu benn rideau moo leen séparé te boo fay dem da ngay rang te te sangu bi liste la xam nga kaso xam tax mu garaaw lu tax ñu war a sensibiliser képp ku dugg si kaso boo génn ñu la topp la ñu xool ndax feebar loo mais yaa gars yi la ma tax seen yaram boobu noonu loolu jagaan bi nga toog vingt jours doo dem douze mais da nga wér am lu ñuy wax torture pour ñoom torture jàpp ni di ko rey nit ki mën na la torturer pendant deux ans quatre ans cinq ans nga soogee dee sans trace nous sommes ñu dunaay dof xam na lu xew gis nañu ay tut yoo xam ne bu ko bu sa gàllee boo fa dëkkee pendant des années da ngay dee te doo xam sax loo rey torture la jël nit ki jël nit ki di ko sàkkaloo yow heure bi ngay <laughs> dem douche ak heure bi nga dul xooxoo dem douche kooku yaa ngi rey man boog am naa 15 jours soo koy dugg si douche bi ba pare jubóo xooy ma jubóo man dama ko doon jubilé. te bu duggee day gis ay ay récidivistes yoo xamee ne c'est day gants kay day dégg seen ay waxtaan day xam ne man sàcc bu ndaw laa bu génnee day jéem a roy yu mag yi. looloo tax ngay gis fii ay gendarmerie yu ñuy rey ak ay yu kenn xamul problème bi loolu la parce que booy ay wëy yu ndaw la ñuy doon duñu sox doon wëy wëyu xiif lañu dañu sonn te des pauvres moo ñu dugal ci sàcc ñu génn gis benn kayitu ñàkk ah mu dugal dara seen bopp ñu génn ne ëpp xam naa yoon bi léegi lu mag lay def ji yoon ñuy rey ay gendarme di dem si àll bi di def ay braquage mais ñooñu ñëpp si des petits voyous ba des vrais voyous vrai voyou du rey nit bere bandi bere bandi du rey techniquement lay sàccee génne ay milliards taxaw fële am avocat am docteur woyu dëgg day am avocat am docteur la richesse c'est la tête affaire yi c'est dans la c'est dans la tête waaw ñii c'est des petites bandits bandits petites délinquances on les amène dans une maison d'arrêt fii maison d'arrêt la dañ leen di jël rein et section utal leen métier bàyyi first xam na moo gën a garaaw ku ñeme engagé wax ba wax li nekk si kaso bi man xëy na maa mujj dugg kaso de maa fa yàlla mu fa duggaat 15 jours day na sëkk mais la fa nekk daf ma mayul daf ma mosuma gis lu mel ne sama àdduna ñoom nag dugg nañ fa génn ragal rocceeku man ma battre bi combat ma si laa amee clip si laa amee sama affaire si laa amee sama lépp moo ma lépp man maa ngi ci te ngir yàlla kaso bi yëpp li kenn mooy entre police la police et population bi police moo naa te boo xoolee Sénégal li ëpp si kaso bi ñi fa ëpp mooy tokkatu yàmbaay les fumeurs de chanvre indien parce que chanvre indien da ko jël ñun boog benn si man benn si ñeneen Sénégal ñu koy tox mais mais kenn légalisé ko parce que fayul impôt mais sangara bi nga xam ne mooy umul xabaar yi ndayu ñaatu mais day fay impôt te étage na dafa arrangé l' am na sàngara bu gaa naan si da gaa si jont pa foofu di si reyantee ñu koy wax Jakarta ñu koy liggéey kees usine bi ay sénégalais ñoo ko moom ñun xam ngeen li ma leen wax bu baax te bëgg ma tudd benn turu kilifa ay ponkali kilifa ñoo moom boobu boobu boobu usine mais Gambie la nekkoon yaa jam moo ko tëbali ñu indi ko kees ay kilifa Sénégal ñoo ko yor moo tax sax moo tax sax cent sax suukar gën a cher ndax dañ koy mixte seen sàngara boobu noonu li ñuy wax saafara indien benn police jàpp benn gaañ buy tox saafara indien mu jàpp ko jor ko yóbbu ko si kaso bi mais na fay tekk ay daan nan tekk bu la jàppee benn juin nga fay temps nga dem ñibbi mais doo fekk koo xam ne ni seen waa gàlle moom la yaakaar mooy fay courant mooy fay luyaas mooy fay lépp mooy dimbale papa ma yaay ma xamoon ndax yaay ji gumba la ngeen koy jàpp dugg ci kaso bi beneen bi ñaata nit ñooy dee si kaso bi te kenn du koy yëg foo gaa yi itam xam réalité bi quoi li fi nekk ñu sëluñu ko fekkee yàlla dëgg la bëgg entre garde la entre magistrat et avocat yi entre la ak police bi da ngay am problème sax dem justice ñu boolaak benn avocat mu lekk sa xaalis yenn dossiers yi ñu teg si suuf nii suuf dossiers yi nañ ko génnee ñu àttal ña fa nekk. benn apprenti ngi nii formé ko ayca jox ko ndekki mburu ak meew dute ak meew wala kafe ak meew jox ko mburu bu doy defal ko beurre mu lekk am na xaalis boobu laa pourquoi nga doon ça aux sportifs là prisonniers ay nit la. mais état bi mën na leen jox ay millions yu ñuy ndékkee yu ñuy añee inséré leen ñu liggéey génn am métier man bu ma génne prison ma def fa deux ans génn mën a defar benn banque wala benn taabal naa sàccati mais dama xool affaire yëpp nekk à côté mu jël ma may liggéey mu may fay mais du ki sàcc sax may la gaañ bàyyi yi yi amul mais dañuy génn ne ah ngay gis ku génn prison sax du am paas sax bu ko yóbbu seen kër. da nga dañ lay jàpp teg la ñuy wax mandat dépôt bañ la àtte fàtte say dossier maam ko xam ne mi ngi dëkk ba Saint-Louis kii dëkk ba Tamba kii dëkk ba Louga bu ñëwee ba 100 mètres jagaan ba bu ko rawee ñàkk na parce que amul bool dina am ñu yaatal sax yeneen wàll bi te ñu ngi ñëw sa bool mënuma gën ñu dugal sa bool sa boolu añ 100 ay 2 si ngoon nga indi fa bool bi nga taxaw rang. teg sa boolu añ ay deux heures huit heures si guddi ñu soog a dugal boolu añ bi sa biir néeg jël ceeb bi jaxase ko mel ni kuy jox ay xaj wala ay mala les prisonniers yi ay nit lañu comme ñun ndagam bàyyi xool que droit de mouton sax dafa am mais ana droit de nit réew mi nag mi ngi ne ko la loi c'est pour les pauvres li mu si jub rek pour baadool yi xam seen bopp xam fi ñu teg seen tànk xalaat mais kaso bi jombul kenn de ñu fa dugg ak a bare mais na la cas de libaane yi ñu jàppoon ak ay drogue ak coke ak brown si biir cent bi ñoom dañu fay ñu amuñu sax deux mois mais kan bu doon man a tamit ñu xool ñu nekk si kaso yi ñu def ay grâce yu baax te ñu bàyyi grâce bi ñu businessé grâce bi gars yi di commercé di ko businessé grâce yaa sa grâce na nga ko bàyyi ñu gracier nit ñi quoi si teg ko si yoon bu ñu jël dossier grâce di ko jaay ay nit. ngay génn en ngay liggéey ci biir prison bi. ay montage les les les les frigos là les appareils là mais on montait ça en prison en cellule teg sa table benn société moo la koy envoyé ngay def montage yi mais tu es par pièce nga def sa mbuus nga dem ñu chronomètre da ngay génn avec ay 6 000 francs le mois boobu temps mil francs c'était 50 000 boo defee 2 ans 6 000 francs chaque mois doo dépensé dara boo dépensé c'est parce que tu bois de l'alcool ou bien ngay tux cigarette sinon la bouffe tu ne dépenses pas en euros te dañ lay jox reer jox la pomme jox la orange jox la banana ndekki même chose da am kaasu potondaawu meew mburu ñaar mburu bopp yooyu la ñaar fromage yu paquet yi beurre pourquoi ñun mënuñu ñu ko am lan lañ def yàlla ñun te ñu am Serigne Touba am maam El Hadj Malick Touba te amuñu loolu Napoléon lu mu fi def Bonaparte kii Stockholm lan la fi def c' est des exploitations exploitation de l'homme par l'homme lañ doon def liggéey loolu nit ñi lan moo di Jamaïque ay ñoom Marley dañu naroon dee ci bato bi amuñu comprimé yi leen jox ils préfèrent ñu garder comprimé yi pour ñu wér ah ñi nga xam ne lan naree dee ñu sàlli leen idée Jamaïque Jamaïcain yi di lekk ci ñax yi di lekk ci ñax yi di lekk ci ñax yi ba te tubaab bi dañu leen tànnoon île des Jamaïques parce que xam nga lu nekkoon île des Jamaïques ay tan ñu sànni leen foofu pour tan yi lekk leen moo wax la histoire boo xamul tey pour tan yi lekk leen moo taxoon ñu sànni foofu suñu maam yi ñu jëlee fii Gorée loolu moo indi Jamaïque bii tey ñoom Marley ñoom Bonifacio ñoom Gra Marcus Garvey loolu moo indi cette histoire là. la moo tax 100 mètres booy génn lu lay conseillé kaay. bu fi ñëwaat de dégg nga nga dem nu joxe benn fooy benn këyit mais këyit boobu moom ngay moom moo la yóbbu ko ba sa gàllee si kaw nag nga dugg oto boo xam ne da ngay paas cent franc wala deux cent ay bis yi te benn jour la doon mooy mooy si tegee bi ngay jox booy génn fekkee sàcc moo la ko dugal dañ lay sàcc la fa dugal jox la këyit bi boo demee ñu xam ne yow ku lire bi dina xam yow lii fa dugal dañ la wax ne lii mooy dugal bi 100 mètres conseil la nga dem mais dañ la war a jël dugal si benn salle attende la pas télévision xool sa yaram ndax feebaroo jël benn moyen weccit jox la ko kaaw ba bu la tëjee 10 ans dañ lay fay fii dañ lay tëj 20 ans am na ko génn temps yi passé kaso génn laaj xool seen kër ah, fu mu nekk ñaata pas nañ si jàpp 100 mètres libéré xool ñu ngi xool ñibbiwunu ñenn ñu ngi bunt 100 léegi rëbës ñu ngi si ñu ngi foofu foo leen dëkk ñenn ñi gedd ki nga xool que société société li koy yàq lu yomb la quoi ñii pour ñoom ñoo moom bi quoi ñii pour ñoom ñoom rek ay nit moo tax yàlla foo mu dëkk foo mu demee nii foo am ay sàcc am ay dealer am ay bandi am ay ñu baax am lii parce que yàlla moo tabax bind àdduna si xalaqa samwaati wal ardi fii sittati ayaamin summa stawa alal ardi yàlla bi muy créé àdduna di créé kasa ba ñu dugg fa yéen si yàlla yus fa ak ñeen ak ñeneen boobu yéen amagu leen kon léegu si àdduna continuité la nag may xaar état bi nag fexee nu mu liggéey ay kaso yu mool jàppale prisonniers yi pourquoi Germanie mu naan benn néeg boo xam sax mais day mel ne fii sax xaw naa boo boo bëggee tëdd nga tëdd mais tey boo duggee kaso tey boo bëggee tëdd doo tëdd parce que am na foo tëdd il tëdd jot ñu def li ñu naan nii silence chef de chambre bi déclenché message am ñu xam ñu bëgg ñu paquete gars yi ñëpp nit ñu téye taxawal nii taxawala la di la tëral mel ne néew tëral kii tëral kii tëral kii tëral kii mais comme ni ñuy def jën si biir ni ñuy pakatee jën si biir saar rek noonu la ñuy pakatee nit si biir kaso bi moo tax maanaam sama benn sang ni ñuy pakatee jën si biir saar dañ foofu fay rang-rang comme rang kang kiririn kang kang kum rang-rang la quoi nit ñi nii na leen rangalee nii billaahi boo ko dund nag doo xam am na ñu nekk ay chambre 4 am na ñu nekk ay chambre 5 ñu nekk ay chambre 12 chambre 13 am chambre yoo xam bariwul nit te di nga tëdd mais yeneen chambre yi xam ne foo si nekk nee naa la sa rentrant rek da ngay jommi ma gis naa ku dugg si gis naa dugg si chambre bi nii entrée dugg si dafa dugg si mais ay yuuxu loon ay yuuxu yuuxu du yuuxu ñu koy xool nii rek boo amee problème ñu problème mu fa nekk la ren d'Angleterre di rey parce que daf ko saaga daf ko yaa ngi may rey parce que dama la saaga mais samay sët dinañ ñëw di la saaga ngay rey di fecc te muy dëgg tey black man white man is wicked man muy taxaw di fecc reggae di kii àndax faru néegaram nekk lu weex tàll ñuy saaga maama muy fecc loolu li Marcus Garvey waxoon amul tey déglu Marley déglu Peter Tosh déglu Bonifacia ah, déglu honte l'histoire de l'oncle John mais da ngay xam ne li Marcus Garvey waxoon démb reenu Angleterre bi mu koy rey dëgg la tey te du fi deñ chaque jour à Paris y a quatre concerts de reggae Marley bi mu ñëwee Paris garde des Sceaux daf ko ne doo fi tuxee yàmba mu xamal journaliste biir wax ak moom ne ko mais yow sa bopp yow est-ce que da ngay tux génnee joué maa ngi ci à Paris instant maa ngi toog si télé bi jàkkaarloo Marley parce que j'étais rastaman donc l'histoire m'intéressait dama yeewu rek xam ne Marley day ñëw suba ma taal suma télé Marley dafa ne nii benn juin si liquet bi mu soloon dafa am poche ne nii benn juin bon tele ñëpp di gis Paris yëpp di gis mu taal ne journaliste bi yow est-ce que da ngay tux journaliste bi ne ko wii ba yàgg a sentir ne moom pare yëpp mi ngi koy seetaan mu ne non ma ne ree xaqataayu taal borom ne ko ministre ministre garde des boobu laay wax xamal ko ne ko man Marley bu fekkee ne bëgg na ma tëgg fii sans tux ma avion mi ngi nii balaa muy dem ma jëlaat ko ma dem may naa ko cinq minutes pour mu réfléchir quoi pare commencé toj ñëpp fee seen temps wàcc Champs-Élysées kat Barbès Odéon commencé yàq magasin yi oto yi par lan rastaman bi Bob Marley dafa war a dugg a tëgg booba yawee Mitterrand mu ne eh lan moo xew si dëkk bi les étudiants wu bien ñu ne ko noonu benn rastaman bu yox Marley moo fi dugg ministre garde des ko doo fi tux voilà problème madame mooy ne bàyyi leen ko mu dugg sinon suñu dëkk bi dina yàqu maanaam loolu tax mu dugg ñu yóbbu ko opéra salle fermée gànjaale njëkk ko woy taal ci salle bi policiers yi taxaw suñu ginnaaw naan ni ñi leen di xër juin lay paas ñu tuux paas kii mar la nekk scène bi di dóor di sànni ay juin gars di taal pourquoi yooyu du koy def ay film la pour wane ne tubaab bi duñu dara mu def concert am après y a eu combien de concerts à, à, à, en France à Paris chaque jour y a quatre concerts ay Galadiatos ay Blackmou ay Esther Pearl ay boy yu doof ay doomu ministre ñëw di wax dëgg gi raayit bi xam na ko xam da nga ñëw mu ne deux ba pare may wax état bi ak justice bi bu dee xam-xam xam dama jaaxal si kaso wala si prisonnier te prisonnier bu wax sa problème wax la sa peine ñaata la afakaa yi magistrats yi ñoom seen cuune seen cuune moo tax ñu bloqué nit téye ay dossier pendant des années des mois duñ la jugé duñ la atte te nga jàng droit jàng avocat jàng magistrat ñu lay fay salaire di la fay suñu xaalisu réew askan bi jël la def la représentant benn justice wala benn magistrat benn avocat pour nga dimbale baadoole pour nga xool ki plaide baadoole yi nga nekk parquet parquet jéemaan ñoo ko tuddee parquet mooy xoolal euh, tribunal foofu la gars yi tudde parquet ñoom fa la ñuy nekk boo amee sa problème sa benn gaan nekk si biir ma dama ko gis di lekk sa mënin te duñ la ko la plaidel avocat yi yërëm leen baadoole yi parce que dañ leen parce que am na avocat xam ñoom dañ leen fa teg justice pour bu ñu ab su benn baadoole ñëwee am problème ñu mën nga xool ki tuya plaidel mais léegi ñoom ñoo mujj topp baadoole yi mais demal tribunal nga gis ay maire yuy jooy mais xanaa yow saa nga xool sax yërëm bu baax su ma rombee xool mën naa romb xool ñaari bambara yuy xeex doo gis xoolal ah kenn ko set tubaab doo gis ko set saraxule kenn du set ñett kenn du set mais benn Sénégal ma problème nga dégg nga dégg xool ñenn ngi naan ko rayal na dee ñun suñu problème mooy lan soxor mooy suñu problème bopp duñu waxante dëgg bopp dëkk dafa bëri ay dókkatu bëri dafa bëri ay tekkatu dil ñu mën a fen bopp ma dóor marto nanu kaas nekk si kaso bi mbaa nu kaas ak hôpitaux yi mbaa nu kaas intérêt population te bàyyi di kalaamu si ay xool ki projet jàmm ak ak tout bu jàmbur bi bu ngeen bëggee dégg amatul tëdd amatul tëdd xam nga am paqueté kaso bi léegi léegi moo wax nii ni billaahi wala xam nga am taxaw taxaw di nelaw nii est-ce que loolu taxaw di nelaw rentrant bay xoolal rentrant matin matin ba minuit fekk na ma chambre 10 maanaam rentrant jël maa xam na li may wax matin ba billaahi wallaahi fekk na ma foofu ñu fay dugal maanaam dañuy dugal maanaam gis nga néeg yi néeg yi wax naa ko sàmmete su ma nee la néeg yi ñooy néegu sacrifice bi rëbës jàpp ko parce que néeg yi seen néeg yi ñu am vingt quatre heures sur vingt quatre dañuy dugal rek di ñuux rek garab daal bu demee bu ba ba gaa jógee tribunal ànd ak ay kàggu xool jël maanaam jël liste bi day ubbi rek ñuux. xam nga ndax néeg bi nga dugal gars yi ñoom liggéeyantoon néeg bi ndax fees na wala feesul ñun daal en tout cas ñu ay jéemaa noonu dugalal xam nga loolu def. et moo gën a bon te ñëpp liberté man damay dugg si net yi du xool jeel yi si adduna bi yëpp mais ñu Sénégal ñoo si gën a yéeslee ñu nga bëggee dëgg-dëgg jeelu Sénégal moo gën a bon y' a 37 prison mais 37 prison yu niil y' a 37 kaso mais 37 kaso benn baaxu si. am wet na doom ji waaye ko. man du ma jël yar defar ko créer sama assistance sociale ñu ne la eh, yar bi pour lan la nga ne waaye pour suñu bandi dëkk bi ñu ne la ban bandi dëkk ñun suñu doom yi sax ay bandi lañu sa yar bi mu ne la mu ne ko xooj ko fële nga ne non ba ma may ko africain yi au fait da ko may au fait may naan ko ay lif mu xool tubaab bi ne ko lii pour lan la mu ne ko waaye pour sa police bi nangam sànga mu ne ko yéen ko defee mu ne ko foofu ñu ne non non non ko tere foofu mu ne kon delloo leen ko fa ngeen ko defee ça ñu ñoo di doon nit ñi liif ay booy yuy burre stade pour etaan Jaraaf Gia ñu dóor la liif nga jóge fi am ay crise de kii ndax benn billet buy jar cinq cent franc wala mille cinq cent ça vaut le coup ko am na vingt cinq ventilo mais nii bu ñu demee ba jéemaan yi def lii bidon yi bu mag yi yi yii nii ngay gis jeel bi nii parce yàlla nii ñi seen yaram yi nii ubbi seen yére yi nii ñii nit ñi ngay seen picc yow da nga dugg rentrant amoo picc amoo dara nga dend ak par force dala kay bomb bu séexoon na yaay xam ak sa feebar jel bi tàng na tàngaay boo xam te ni yow nit rek céléru yi céléru nit rek nit nit fu nit rek même bu fa tegee mille ventilo day tàng nit moo ëpp doole ka ventilo ay courant yi ngi yëpp ñoo leen ëpp doole parce que wala xadd kem naa bani aadama ñun ñoo branché lépp luy tàkk tàngaay bi nekk biir sang ba bëggee dëgg dëgg tàngaay ba nekk sam tàngaay bi nekk biir kaso parce que c'est tellement populaire nit benn benn nit boo xam ne ni moo ëpp doole sax li nekk biir marché te tellement populaire nit ñi ci biir néeg bi comme ay yamb foofu moo fa dugg di nekk nit foofu boo bëggee yàq nit yóbbu ko 100 mètres boo bëggee yàq nit yóbbu ko 100 day dem ba ñàkk jomm mais mais am nga noonu def Sénégal am na fu mu la dugal jàppale maîtriser pendant quelques weer wala quelques jours baal la nga dem man am naa benn problème dugg fa 100 mètres jours ñu wax adduna bi yëpp sama mère mën na ko yëg sax jaar fa dee parce que xëy na nu mel si moom mais danga ko nëbbu. 15 jours jarul wax télé jarul ay weer bi di ku ne yor sa lamine di wilpaane nii nanu suturaal suñu bopp te suturaal nanu am sutura suñu bopp Sénégal quoi ñun léegi dafa mel ne ñu ñagi sax ñoonu gën léegi non xam nga man je suis un gars cool et eh, j'ai fait les sept coins du monde quoi def naa Londres def naa Allemagne Espagne rek laa demoon def naa euh, Hollande Paris laa doon dund donc je connais damay xam nit bon mais damay gis ay nit ñoo xamee ne matanu mësuñu génn sax Sénégal c'est des innocents mais si affaire bu ndaw ñu def leen loo xamee ne booy tuxal ma waaye jóge rang bi dem rang rek pour jëli ji benn cigarette rek mantu bi ñëw egg si et eh, foo jëm booy ah da nga dof rek ay brodequins yam fii la ñu sol pour benn booy bi kële moo nekk si rang bële chambre huit la nekk yow yaa ngi chambre neuf xam ngay dem jëli ji benn mégot mu luy tuxal parce que tuxuloo li nga fekk nga jóge rembale dem di jële ji benn meegu diggante bi manto bi dina la ci dóor mën nga si amee hémorragie jar na ko mais yow manto bi sax da nga war a civilisé waaw booy lan la waa eh waa taxawal jël si cigarette bi am mais jeex na yow manto bi boo tëddee da ngay xam ne def nga benn geste bu noble mais nga dóor nit képp koo gis muy policier gendarme lu mu mënti doon ku si dóor nit boo tëddee si njëgën di nga xam ne tu es un victime di nga xam ne yàlla bés bu la jekkoo du la baal parce que baaluloo li mu bind ku fi nekk suñu borom na la bind pour dóor sa bopp nga dóor ku saaga yaay jàmmul sax yaay nga saaga yooyu moo fi war a jóg ay dóor ay prison dajale ay nit ay nit di génn def prison ay penu cinq ans doo am sax métier te am ay ñuy ñu mën a jàngal nit ñi métier nekk ci dëkk bi yaa def menuisier fii yor atelier amuñu sax liggéey boo leen jëlee inspecté leen prison nga jox leen matériel bi war mais mën nañ former lu mat 100 booy 100 booy yooyu bu ñu génnee en tant que détenu permis deux ans bu génnee mën defar armoire mën defar taabal mais day am métier bu mënee ñëw tubéy mën ñëw robe mën ñëw marinière mais bu génnee day am métier. Sénégal amatuñu diine amatuñu lislaam amatuñu concept amatu amul benn culture loolu loo tax ñu songi àll ba. boo xoolee si biennale bi passé bi tubaab bi ñëwee danoo songi àll ba si pël yi pour xam sax nu mën a yóbbu te Rebeuss rek bàyyi du kaso de 37 prison moo am Sénégal état bi nag na si jóg même bi ba maître Sidiki xool Kaba ñëw na mu wax na ba sonn dem keneen ne keneen na wax na ba sonn te maître Sidiki Kaba laa gën a am confiance moom mu war a jàppale jël tax moom moo jàng affaire du kaso te moo xam kaso yi ba xam seen terrain yi tey dem na mandaam daf ma def démissionné moom moom la moo xam mais li may wax état bi rek kaso bi waaw moo jar a àtte quoi. président France bi nu mu tuddoo Macron moom laa bëgg bëggal mu jàppale ñu si ñoom Macky Sall les dirigeants africains là yi am en Europe ñu defoon ñu loolu chambre de métier yi am en Europe dans les prisons pour les détenus nga xam ne bu ñu génnee dañu am métier ñun tamit africains yi ñoo loolu man loolu mooy suma problème 100 laa bëgg man. bu buñ ko raser de parce que magasin yi ciment bu baax la tubaab yee ko fi def bañ ne ba miir bi ay xeeru géej la mais ñu def ko ay chambre de métier tailleur chambre de métier menuisier chambre de métier électricien chambre de métier mécanicien dafal katu scooter dafal katu moto dafal katu oto prisonnier bu dugg métier bi nga bëgg ñu yóbbu la foofu deux yi ngay def bu tëdd ñu def dara sa bopp nga am dara boo génnee am liggéey dootoo sàcc dootuñu agressé sa kalpe bu wëddee ñu ne la eh soxna si xoolal sa kalpe soxna si sa saag bi ci lii mi ngi wëdda mais ku xiif sa saag di wëdda dina la wax xoolal sa saag li ñu xaar nga avancé mu for ko pour ut lu mu lekk parce que dafa xiif góor waru xiif xiif ma fi war a jóg yàlla du nu may pétrole may nu gaz may nu or may nu zircon c'est quoi zircon moo tax portable bi ngay wax lii nit nekk Amérique nga mën a wax ak moom. zircon moo tax zircon moo gën a cher diamant moo gën a cher or moo gën a cher pétrole moo gën a cher gaz man Sénégal bu ñuy wax ay pétrole wala pétrole mais yow zircon bi yàlla indi nañu ko ndax lan Sëñ Tuubaa fi tëdd maam El Hadj Malick fi la tëdd maam Limaamu Laay la tëdd Cheikh Turaat mi ngi fii almeer yi ah, xeetu yonente la ñu baax ñëpp maam Limaamu Laay ngi fii yoof yonente bi rek moo tëdd makk suñu borom defal leen pétrole màkk ay xeer rek la woon indil leen zam-zam. zamzam da nga feebar nga naan zamzam wér. gis nga boo bëggee dëgg dëgg boog atu góor jigéen ci ata kaso la génnee ñu ngi naan ay moore góor jigéen ay kanaare nii nii kaso la góor jigéen génne te kaso moo gën a garaw te ba léegi nii xoolal ma nga fa mais foo mu nekk dafa xat nit ñi dañuy kawante nii nii boo nekkee yembar boo tëddee ñeneen yaa ma gën a xam kaso la. affaire bandi la bandi mën na def dara pendant cent ans doo ko xam wër na yàlla góor jigéen si kaso la génne man nag yan yi du ma ko wax mais boo bëggee dégg dëgg boobu góor jigéen ci kaso la génne parce que yow collé chaque jour ngay collé góor chaque jour collé nii nii collé nii yow bu fekkoon sax da ngay kaso mosoo bu gis ku tëdd bu tëdd jotee ku tëdd jaaxaar nii nii nii nii non non nii rek wet nii kenn nii kenn nii bu dee pakataas bi nii la yëg si kaw keneen ñuux waat nii mooy ci suuf nii moom mooy dàmbaloo bi léegi foofu nag nga rangale fa ay nit tii nit am góor ñoo xam ne boo leen xoolee da nga yaakaar sax ay jigéen la ndax seen wàññi seen wàññi baax léegi yenn jermaan yu yi nag bu ne ba yàgg foofu nag mën na la teg choc xam nga wax sans départ rek si góor da ngay mel góor am na ñu lay xool ñame la am ñu lay xool tamit sans départ maanaam li naan gaynde bu yebee noo bukki bu yebee gaynde si dox ni baa tax nekk si kaso bi mafia bi am si biir chambre yi bokk te moo xam affaire moo xam benn affaire de problème buy amaat nii ñoom daan fàttali passé li am ak li gar yi dund ak li ak Germagne li ñuy dund ba tey bokkul ñoom la moo tax Sénégal pourquoi Sénégal mënuñu def documentaire ko si jeel fekkee dëgg la nan def documentaire ci kaso yi mais allez nan def documentaire ci bi jël ngeen ma billaahi bu ngeen defee benn vidéo ci jël yi da ngeen si nit ku xool nit ku xool émission bi xaru nit ku xool boppam di jooy billaahi wallahi c'est tellement man bi ma njëkkee dugg romb 100 mètres te dox xam naa njëkk gis ay loxo yu def nii ay kànnaar ay yëre yoo xam ne am na ni ay 1804 ay bidon yoo xam léegi su fekkee benn directeur moo ñëw biir 100 mètres nga pour visiter leen pour waa 100 ñoom ñëpp ñoom dañuy dugal gars si biir néeg yëpp mbuus yi bagage yëpp suñ koy ñëw si biir néeg bi boo dee booy dox da ngay gis mu naaj quoi fekk na néeg bi mais ñaata mais nga laaj rapport yi mu dugal foofu ñuy jooy rapport yi dugal bi cent mètres ñuy jooy mais laajal ñooñu laajal ngaaka benn bu bu duggee fan fan la doon tëdd si booru pot bi mais dañoo fëgg appel dafa daw ñu ko taral appel lañ fëgg appel benn benn quoi boo tëddee chaque jour dañ lay yee six heures du matin il faut conditions yi di changer ñu xam ne ñii ay nit lañu ko chaque jour nga gën ni ñi ñëpp taxaw Moussa présent te boo jumee yaa ngi sellir boo jumee dañ lay mbugalee dañ lay defar bagage yu métti xam dañu xamul sax luy siir ko man damay wax ay intellectuel man bu ma doon wax sax ku jàngul sax damay comprendre mais damay wax ak ku nekk université laa la wax de maanaam mais père lan mooy ko damay sax pour lan ñu leen la réalité mais wax leen leen dëgg gi wax leen leen zircon moo gën a cher jamaa yéen a ngi wax or di wax pétrole beex yooyu pétrole du dara pétrole day dox mais zircon du dox zircon day sax toog pas pare ak pétrole pétrole mën na nekk fii Sénégal tey nga jël di ko jël mu yeewoo Gambie suba yeewoo Mauritanie ginnaaw suba yeewoo Côte d'Ivoire ginnaaw suba mais zircon moom day sax fi muy sax di génn di gën a yokku kooku mayu sunu borom la donc matière yooyu noonu war a xam c'est la mondialisation ñu participer bokk si monde bi si développement monde bi yee suñu doom yi jàngal leen ñuy nekk ay créateur boo demee Chine ay lan ñooy defar ay montre ay ay xale chinois yoo am ay 7 ans 8 ans ñooy defar ay ay portable yi laa nit ñi di jënd bi ay 300 000 parce que dal la dana leen ko jàngal te peuple boo ko jàngalee Alxuraan bu mu mokkal à l'âge de 7 ans 8 ans rek war nga ko jàngal ni ñuy defaree kaasu ataaya am na beneen cellule am yeneen cellule am yeneen cellule ci mooy nu ñuy torturer nit nu ñuy mbugale nit am na foo xam ne boo fa duggee doo toog doo taxaw doo jonkoon parce que looy lekk yaa kañe yéen a koy séddoo cellule la jagaa bi ngay coob cellule la ni lay paquetee cellule la nga toog vingt jours da doon douze cellule la yow boo xam te ne saa xool gi ceecax bi amul fu muy nekk mu si musi di prouver la ñuy dugal ceecax yi ko jox nit ñu koy coob moo tax yeneen jamono bi sax lekk jagaan ñam la boo xam ne amul xet amul air maanaam dañu jàppee prisonnier ay mbaam quoi yow yow droit de mouton sax ah non c' pas vrai gars yi loolu la ñuy def de mais mais mais ñu koy dingat ñu koy dingat kos jàpp ba ñamal ko cent mètres surtout moment bi nii tàngaay bi sam yi foofu noonu fii tàngaay sant bi nii no foo faut yi di dimbale jëlmaane di fa dem di leen surveiller di def ay don tu vois di jàppale gars yi di di leen jox ay ay tenue tàngaay ay ensemble comme mais ñun waaw man moom mosuma amoo problème benn gàtt quoi benn problème ak benn gàtt bu tudd Cheikh Sarr fii laa ko njëkkoon wax quoi après deux bu tudd Cheikh Sarr yaa càkkati rek kooku maa ko jëlee biir 100 kooku dafa bokkoon si ñu doon man lu ma xam nga nekkal gàtt nekkal gendarme man booy rey du tëtu dama lay kalaate ne ne t'en fais man boo déranger senegal yi man ma ma volontaire ma xëpp si bomb moo tax ñu jëlee ko fa quoi. da doon ñëw si néeg bi avant moom sax avant moom moo tax avant moom am na xam ne loolu liggéeyam yow boo fa nekkee yow kase yi dafa garaaw yow boo fa tëddee nekk fa pendant des années sa jabar bu ñëwee yàlla bu xaw a mool ne gars yi dañ koy gars yi dañ koy de soo ñu am visite parce que y' a deux y' a visite contact y' a visite sa jabar bu xawee mool bu ñëwee tam gars yi iri ko gars yi da ko doon liggéey. mais Cheikh Sall moom daaw def loolu moom doon torturer Jelmaañ dañu si benn néeg ñu la eh sama lii nekk sama laa man moo duggee biir 100 mètres benn fan laa fanaan lan demee ma changé sama bopp ni biir 100 mètres xool sama bopp gis ma si télé bi nii gars ñoo ma dénk bi mission jox nañ ma lettre jox naa ko waa Sen TV jox naa leen ko yéen lettre boobu ma leen jox maa ngi ko jëlee biir 100 mètres six feuilles la loo am si kaso du Sénégal yëpp boo liiree foofu di ko fa fekk te maa ko génne jox naa ko je donnais toutes les presses muy TFM muy Zik FM muy Walf ba muy Tunkara ñëpp laa ko jox sama jaan wàcc na sa mission militant ñu boole ko nag dossier boobu nag ñoom la quoi li ma man def naa ko maa ngi continuer di xeex sama combat tu vois maa ngi déposé samay affaire nag mais ba léegi waaw ñu ngi naan ma xaaral mu ngi noonu daal ndax li man mën mooy mooy waaw waaw jàllale message daal waaw non ñoom seen problème bi si gën a ëpp mooy affaire de athée jël man bëggul sax ku ko may attaku ndeysaan ñoom loolu noonu soxla quoi lu garawaat parce que dañuy ko am day toog nii rek xamul kañ nan ko attee wax na ko lu leer wax na ko dara quoi en tout jàpp na ko dóor ko longu détachement def ko mandat defu ñu bàyyi ko noonu quoi kooku mooy dem si nag bëgg xaru bëgg def lan bu ko def gis naa loolu ma xool gis naa ko sànni ni mais koo xam ne deful dara police jàpp na ko xam nga gar yi gar yi sax mën naa ni ñoo ñoo Germain ñeem foog ngeen wax ak les police bi foog ngeen wax ak coy yi buum yi alkaati yi ngeen war a waxal parce que ñoom lu ji njaaga ñooy njaag magistrat ñu ngi fële gar ñu ngi fee mais lu police bi jàppul ñoom duñ ko xam ñaata jaaykatu yàmbaa lañ fi jàpp ñu fay pousse mais nag xaalis boobu keesu police bu amoon état day dëpp keesam di la vérité nañ waxtaan parce ñoom ñoo jël sàngara ñu valoriser ko yàmbaa ñu parce que état amu si impôt mais xam nga yàmba bi xam ngeen fu mu jógee xam ngeen tool fu mu nekk ñoo ngi cent mètres ngi cent mètres fees dell ñoo ñoo fees cent mètres mais chef bi nekk kii justice yàgg nay kaas ni leen bu leen fi kenn ku tox jeen mais ñoom ñi jàpp gars yi mais xam ngeen fu yàmbaa bi nekk xam ngeen fu ñu koy bayee xam ngeen tool yi di la vérité xam ngeen dimu problème bayul xam ngeen ki bay tu mais dangay jàpp mais yu xoolee ren ñaata nit nañ fa jàpp mais ñaata coow nga dégg ci affaire bi temps yi jàpp nañu yàmba policier jàppaa nañ ko jaay nañ ko jàpp nit rey ay violence yu garaaw parce que la loi <laughs> non la loi dafa garaaw quoi loi dafa fort parce que seen garaaw bi nañuy sàkkatoo loolu moo tax bu ñu la jàppee rek yëpp yooyu yëpp yooyu amoo dëgg fekk doomu jàmbur si biir koñam wala biir gàllem nga jaay ko doole parce que yow tey yow yow policier nga ko ñu wax nga dem remplir kayitam chef bi xëy suba ñëw police xool Samba dafa doon xeex def na lii dan lay val dan lay jàllale ak cause moom moom nañu yërëm xam ne policiers yi ay ay citoyens lañ comme ñun vous êtes des Sénégalais comme nous nous sommes même ñoo bokk nous sommes des frères bu ñu demee ba policier te tubaab duñ def lii tubaab yi ñuy rey xam ñun neenu senegal mooy pays laïcité ñun ñu ngi rey tubaab mais ñu rey ñu kenn ñu rey ñu tubaab rey ñu iblis ñu rey ñu yàlla rey ñu kenn fi ku ne sa bopp ngay xool leen neex na nanu dina policiers yi policiers yi gën a dolli cent mètres fees dell nit police billaahi mais ñu war a jàpp ñu fi am pagaay yi gis nañ fi ay ngan di dealer ngan di sàcc ay ñoo xam ne lu bon rek nañuy def rey nit wër ci tali yi di fen ñoom ñëpp dañ leen war a jàpp tu vois da jàpp kenn ku tox benn chien nga doo ko nga doo ko ñaata nga yor waaye maa ngi cent mille de booy booy ma yaban ah. du ma 400000 mais ana xaalis boobu xaalis boobu xool ñu jàpp si dealer yi nanu teg ay sart bu ñu la jàppee benn juin nga fay temps sinon kase bi day gën a bloqué garde yi saa ñu sonn yenn suñu ay yenn jelmaani quoi parce que xam nga kaso bu ma damay défendre kaso wala défendre moo ko mais tamit jelmaan dafa bare defkat te tamit defkat tamit waaw kenn du ko faral quoi dafa bari ñoo xam ne si biir chambre bi chaque jour ñu xeex chaque jour ñu créer problème cellule rek mais bu fekkee dana dugal kaso nga sa problème bopp nga toog dund sa nga tëdd sa pen mun nga fa nekk dix ans doo am problème mais am na boo yoo xam ne si biir kaso yi bi booy danoo lakkale te mën tooñ moo tax gar yi foo nu wax ñoom te seeru chambre yi ñoo leen ni boolee gar yi ñu génn leen duma leen andi leen wa ilaa lu jàpp benn gaam bu rëy wala gaam bu def lu yéeme mbaa mbaa benn gaam bu tooñ amee dégule benn gaam bu tooñ xoolal benn borom alal ñu jàpp yóbbu la biir 100 mètres mu yóbbu 100 moom moom mooy contacté garde boobu noonu chaque instant yenn heure yi mën na ñëw génn la yóbbu la servir fekk mbugal la am na biir 100 mètres eh, moo tax nit mën na nekk 100 mu toj dëkk bi mun naa nekk fii toj biir 100 mètres waaw visite bi moom sans des fois am na visite contact. am visite barrière mais léegi affaire yi dafa wàññeeku quoi visite yooyu léegi dafa wàññeeku te quoi dafa wàññeeku te booy yeewul matin doom la sa passé te quoi am côté boobu sax mu ngi tane ko côté boobu noonu waa côté visite bi sax nii mais visite contact la gaa yi war may nit ñi nga toog ma toog ni ñu waxtaan mais visite te boo déggee si barrière bi doo dégg da ngay yëngu sonn da dof parce que benn barrière bu ñu def nii benn kaas. dugg fa yow mi jël maam mais yow yaa ñi lay seet si ñoo lay wër mais ay yoo ngay dégg nag parce que te fu ñu lay ak ñeneen benn kat kaara la ngay dugal nit ñi barrière bi nii ngay xool nii ak ki woo mi ngi yuuxu mais da ngay xool mu war nekk nii du xool ba daj si moom nga waaw def nii mais seulement ndax buri bi nga quinze minutes la xam nga dix nga dem. solution daal mooy xam nga nañu yërëm Sénégalais yi jàppale tamit waa prison te xam may wax tamit Sénégalais yi combat bi du politique kese quoi du politique du ay pétrole wala ay leneen du ay lële combat bi xamal lan la jël bi parce que jël bi tant que sottiwul rek tawee du sotti parce que ñu nekk ñëpp xool jël nañu jógee ba fii ñi fi jaaru jël wala Sénégal néew na ñenn ngi seen tour ñëwagul te yàlla na jël sax si ñoom allahu yaalam parce que dafa garaaw kaso mu ngi noonu kaso am na façon nit bu nekk mu ngi kaso am na ñoo xam ne bu loxoon seen cas si biir 100 mètres seen problème billahi da ngay bàyyi àdduna nu waxuñu léegi na këy di génn këy di na dossier génn mu leer may ñaaxat état bi rek fu mu jël responsabilité am ngir yàlla di ko ñaan xol le président xol Macky Sall maa ngi koy ñaan te yàlla mu tax na na dimbale jelmaan te xam ne Sénégal am na 37 kaso na jóg si ñoom kaso yi xam na yi màggat na kaso yi daa fees dell yow benn néeg mais àll bi yaatu na àll bi dem leen ngeen ngeen bay foofu ngeen ngeen liggéey àll bi ay ngan di jel jeel yu mool ay dix personnes sax benn néeg ay vingt personnes sax benn néeg mais nekk Dakar Dakar rek du Sénégal Dakar dong du Sénégal adduna bi senegal dafa yaatu boo génnee jangaay bi di gis ay terrain yu terrain yu mais nan dem sur le terrain mais ñu toog fii Dakar yëpp ñu bëgg a ñëw fii fii da dem mujj day saturé comme force te force bu saturé débouché rek c'est fëkk jaay bi tamit nañ si wax daf fi war a jóg parce que benn ñu ne góor jigéen fu mu teg tànkam waroo teg seen tànk nan ma baal nag ñoom jodoon maa ñoom dara mais dañ ne góor jigéen fu mu teg sa tànk waroo teg sa tànk te man ce que j'ai constaté en France góor jigéen ñëw dàq maye yëri fii parce que ñoom c'est des ñoom ay kii lan c'est des gens yoo xam ne sont à la waaw ñoom sili bu DG yi buñ ko solee DG yi xew yu na beneen dañuy jël seen garde-robe yëpp maye croix ñu ne lan na ñëw Sénégal ñu ne lan na ñëw fëgg jaay nga jaay ko yooyu ñu ne la góor jigéen fu mu teg tànkam waroo fi teg tànkam nga sol sili bu góor jigéen ba fi bëgg critique góor jigéen ça va marché kenn du toog ci der bi jëw yàpp foofu laa yem Macky Sall nag bu ma soxlaa na ñëw waxam man parce que ci gan important man ci dëkk bi CM2 laa yem ci école mais damay wax ñu def université di leen jàngal génne Sciences Po may waxal ñoom ñuy déglu di bind CM2 ci classe su ma gun bii laa ko yemee mais dama def université du monde